bëgg ñu xam ne euh, maanaam suñu diggante ak état laa doon leeral léegi man man maay meeru ville cees ne man Baye Fallou Thiès laa surga cees la saa yu intérêt taxawee damaa war a taxaw ca loola man mën naa am sama xalaatu bopp ci wàllu politique wala ci wàllu tarixa wala ci wàllu diine mu bañ a bokk ak bu président de la république te président de la république maa ngi moo xamante nan bu baax moom xam na ni bokkuma si Benno xam na ni bokkuma APR te duma bokk ci yooyu moom xam na loolu te du ma ko sax laaj ndax respecté na ma mais moom mooy président la république mu jiite état bi ma jiite mairie Thiès mairie Thiès bokk ci état bi kon bu wàllu liggéey taxawee dañoo war a collaborer ci loolu maanaam toog ak président la république xam nga yenn saa ñun dañuy peto peto bu ni fàng nag ci kanamu ñëpp ñëpp di gis man damay wax ak Macky président de la république di wax ak premier ministre di wax ak ministre yi wax ak ministre des ku ma war a waxal lu jëm ci liggéey bi naa wax ak yow man di son homme libre gis nga jour bu ma bu buur yàlla dugaloon ci man ma façon yéene def leneen midi laa koy def jaar ni de Caen di dem naa leen maa ngi dem newuma ci yooyu yàlla bindewuma noonu te kenn bu mu xaar mu jóge ci man parce que loolu du am parce que dadul njariñu kenn mais loolu lu personnel la mais lu jëm ci ville lu je prendrai aussi toujours mes responsabilités cest à muy stade muy leneen lépp lu ma yaakaar ne pour mu mën a sotti dama ko war a dem lijjantee ji ci kenn comme na ma ko defee woon bi El Malick bëggee ñëw defar fi mais mag moom bokkuñu dara si wàllu politique mais dama ko ko yombalal même bi mu amee ay jafe-jafe nit ñi bëgg dal ci kawam et dama ko cee yombalal kenn mësuma dégg ma yëkkati kàddu wax contre moom parce que loolu du sama cër sama cër dama ko ràññee sëñ Aliou géy mii nga xamante ne moom la ñu wax ne moo jàngal Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy da daan wax ne yàlla xañ ma lu ne ba mu des ràññee maanaam dañu ràññee la muy mooy li ñëpp bokk li ñëpp bokk lii ci la bokk muy ndaw ñi muy sportif yi muy mag ñi muy ñi fi ne tey muy ñi fi nekkoon démb ak ñi ñëwagul ñoom ñoo ko bokk bu stade bi Maniang Soumaré judduwaatee dundaat ñu yeesal ko mu dem ba rafet pour ñëpp lay doon bu nit ñi dee seetaan football du ñu seet ci biir terrain bi ban jour moo bokk si ban parti wala ci ban tarixa dañuy seet ku man yaa ngi dégg kan la ay aile de pigeon jaar yoon yoo la ñuy lijjanti kan moo mën a taal yaa ngi dégg ku mën a mbëkk ah mais waaw damay wax loolu parce que dama ko mënoon <laughs> yaa ngi dégg maa doon seen Omar Youm <laughs> waaw waaw léegi nag maanaam maanaam loolu la ñuy xool mais loolu nag vraiment nit ñi dañoo war di rafetal vraiment dañu war di rafetal léegi nag ki nga xam moom la ñu sant liggéey bi moom xam na li ñu xaar ci moom li tax ma wax léegi journaliste da ngeen di dugg ngi ban leen da ngeen dugg ci vestiaire yi ngeen xool ni mu mel tey bu ko defee su pare xam nga dina am réception technique ñi nga xam ne ñoo yore liggéey boobu ci wàllu maire mais xëy na loolu doyul